ñoom ay nit yu soxor dañuy defante dañoo jàpp ni moom kii nga xam ne mooy Pape dafa bëgg wax ni ñoom dañoo bëgg a daw te ñoom parewuñ pour taw dañoo pare pour écraser population bi rey leen daggate leen toogaat fi parewuñ pour daw ñoom dañoo jàpp ni ñoom ci ñoom laay wax de ci li ñu de lu ñu posé lu ñu wax dañ ne ñoom dañ Pape Alé dafa bëgg wax ni ñoom ñi ngi rawale seen njaboot parce que gis nañ population bi ne ah ñi ngi dawal seen njaboot ñi ngi dawal seen njaboot dañoo préparé pour daw te ñoom bëgguñu assumer nañu dañoo ragal dañuy nëbb ni ñoom dañoo ragal lañuy làq ni ñoom dañoo ragal te population bi loolu bu Pape Alé waxee loolu ñoom ñi ngi commencé population baa ngi commencé jàpp di gën a yokk fit di am fit di xam ni ah kon yii ñi ngi nar a daw kon yii dañoo nar a daw kii ñii dañoo nar a daw ñu ne nag far Macky Sall jóg foofu dem Japon rek démb démb démb ah démb démb démb même pas vingt quatre heures presque bërki démb la Macky Sall dem Japon démb lañ jàpp ab Alé mu génn dem Japon rek ñu ne dem leen jëli ko ñu dem jëli ko donc rapport bi bokk na ci lu ñu tax ñu jëli ji ko le fait ñu ne ko ñu génn ko ne dafa feebar ba pare ne ko doo wax doo too wax da ngay disparaître à vie ba deux mille vingt quatre le temps ñu nourrir suñu suñu li ñu suñu plan ak suñuy suñuy complot pour jëlaat nguur gi doo wax bokk na ci. parce que liberté provisoire sous euh, sous contrôle judiciaire bëri na ñu koy def ñu ngi wax donc affaire Bokar Yàgg bi c'est la goutte ki affaire a fait la vase. cette goutte d'eau qui a fait déborder la vase affaire Bokar Yàgg bi la donc ils se sont sentis vexés ne dañ leen attaqué seen honneur dañu bugg a gëmloo nit ñi nii dañuy daw te ñoom dawuñu dañu bugg Pape Alé doon bëgg a gëmloo nit ñi que ñoom dañuy rawale seen njaboot te rawale wuñ seen njaboot donc rapport bi ci la bokk Marème fay bu yëg boppam ci la bokk te loolu sax mooy mooy mooy nday mbilli gi Marème fay bu yëg boppam parce que Marème Faye dafa gis ni Pape Alé dafa yëkkati jabaru ñu fi jaar ñëpp moom xam nga jigéen yenn état d'esprit yi ñuy am Pape Alé bu mu waxee ni moo laa est-ce que mus ngaa gis euh, jabaru président bu taxawee nii buy tëjaate ma ne ko déedéet est-ce que euh, jabaru Ablaye Wade jàpp na fi ay nit di dugg ci système di tëjaate ndax ay vidéo ma ne ko déedéet jabaru Ablaye Wade déedéet xaw ma ko de est-ce que jabaru Abdou Diouf ñun bu ñuy fàttaliku am na ku mu fi jàpp te yéen ci kaso bi ndax moom lañ vexé déedéet te pourtant le Pape Alé Niang wax am na loolu Marème Faye buñ ko yónnee vidéo dagg ko won ko vidéo bi metti na ko lool moo tax moom mu moom moo doon tëj Marème Faye bokk na ci ñu tëj Pape Alé Niang mu doon la troisième personne bu Marème Faye tëj Karim Xurum Xaq ab mag kii ko tëj Marème Faye la Cheikh Omar Diagne ki ko tëj Marème Faye la léegi moom Marème Faye fay tant dafa sentir ni dignité am lañ vexé honneur am lañ vexé dañoo gëmloo Pape Alé daf ne moom ko bon la kuy tëjaate la mu mu woon ko ni man maa kon ko affaire bi man la léegi man dama yow sax laay tëj nag pour wax jeex loolu loolu la kon Marème fay moo doon tëjaate moo tëj Pape Alé mais dañ doon xaar Macky sal dem far rapport ba génn ci di def benn publication wax ñiy yori rawale seen njaboot comme ku mel ni Bokar Yàgg chef police muy beneen encore ñu jàpp ko indi léegi bëgg dellu di gëmloo sénégalais yi que non live moo laa moo live am àdduna yëpp dofuñu mi ngi fii dindiwuñ ko effacé wuñ ko ñëpp ko seetaan ku dem Pape Alé saagawu leen xasu waxu leen dara live bu Mollah amul dara lu ñu mën a toppee Sankhaleñ live bu Mollah ak Pape Alé Pape Alé amul dara lu ñu mën a toppee melentaan live bu Mollah Morgun Pape Alé amul dara lu ñu mën a toppee weñ weñ amul dara lu ñu mën a pompee yoo daraan amu ca waxtaan la bégee happy bëggee journaliste yi bëggee laaluñu fa dara violé wuñ benn secret d'instruction dara amu fa lii lañ ko jàppee dañ na ko dañ ko ne par force da noppi te journaliste moom boo ko noppi la dootul exister ti te wax naa leen benn affaire ils avaient proposé à Pape Alé Niang huit cent million dama leen di expliquer li ñu li am Mermoz bu Pape Alé Niang ñëwee gaare gars yi ñëw nuyu nangam ñu yóbbu ko seen salon bu ngand boobu ngandam maami salon ñu togg waxtaan y avait fay Faye makki sàll Macky Sall ñuy reer ba suur table ba am ay seen xawma ay fruits seen fruits yooyu ak jus yi nangam nangam Pape Alé Niang ñëw toog lekku fa sax ndeysaan toog jàkkaarloo ak ñoom waxtaan wooyu Pape nanga mu naay lépp jaamu Pape di leen déglu ils proposé à Pape Alé Niang huit cent millions de francs CFA pour mu ubbi teleem boobu noonu euh, euh, xaw ma Dakar Actu xaw ma Dakar lan Dakar euh, système bi pour mu def ko genre télé internet wut ay journaliste te ñoo ko ñoom ñoo ko proposé loolu Macky Sall Marème fay Sall huit cent millions pour débuter pour commencer pour ubbi teleem boobu dakaar lan dakaar matin dakaar matin merci beaucoup dañoo proposé Pape Alé Niang huit cent millions pour en attendant mu dem Dakar matin mu dem jëndi ay matériel ñu jël Dakar matin def ko genre télé benn télé mu wut ay journaliste ñu defar ay table ay ordinateur ay caméra ay affaire mu def benn télé am sitam am sitam bien mu ñu ñu financé site bi financé télé bi en attendant huit cent millions mu rejeté ko huit cent millions mu rejeté ko calmement et respectueusement foofu ca ca Mermoz pour mu mun a noppi kon Pape Alé Niang ak leneen ak leneen Pape Alé Niang yor na lépp lañu ñu njëkk def moom mooy dañoo bëggoon jël portable mu ne non bu mu Pape Alé dañoo bëggoon jël portable mu ne leen fii du palais kër ngeen ma woo ci kër laa ñëw nit munoo ko invité woo ko ci kër ba pare ne da jël portable am Pape Alé bañ ñoom ñoo ko woo ne leen non munu ma leen jox sama portable du ma leen jox sama portable moo tax portable boobu Pape Alé dañ ko këf <laughs> këf te naa la expliquer lan moo tax ñu këf ko bi mu ñëwee luñ ko njëkkal kii mooy pour jël portable am mu ne du jël portable du leen jox portable bi ci kër la ñëw ñëwul palais du ay affaire audience palais yooyu ci kër la donc affaire familiale la ku ku la woo wax la maa mu jox la mu ñëw toog ba mu toogee ñoom après dañoo soupçonné ne Pape Alé Niang dafa enregistré buñ koy jéem a corrompre ñoom dañoo enregistré ne Pape Alé daf leen doon jéem dañoo dañoo soupçonné ne Pape Alé da doon doon jéem a enregistré moo tax une semaine matu ko ñu dem jëli Pape Alé te Pape Alé Niang nee na leen bañ ko jëlee amuñu luñ koy teg te nañ ko fa di ko jaabante suba ngoon Pape Alé Niang loolu ma toppee amuñu ko ñuy wër luñ ko toppee ñuy wër luñ ko toppee ñuy wër luñ ko toppee moo tax lépp ay fen la secret défense lañ doon wax strictement confidentiel secret défense lan lan moo secret defence lan la génne non tia génne nga ay document euh, confidentiel estampillé secret défense mu ne leen lan la lan la ñu ne ko noo xamuñu mais en tout cas lii daal la nii lii secret défense kii bi nga génn ci gendarmerie bi nga secret défense ñu tëj kaso parce que première fois bu ñu tëj Pape Alé Niang mooy la ñu jàpp ni moom ba mu fa ñëwee ñu proposé ko mu bañ boobu noonu la mu rejeté lépp loolu lañ ko tëjee ku la wax leneen day fen leneen day fen déggu leen de dama ne première fois bu ñu tëj par Alé Niang kaso bi lu mu ko bu ñem lépp luñ ko wax luñ ko toppee ci ay inculpation dara du ci dëgg ndax amuñu benn document buñ ko mën a jàppee te nañ ko ba pare di wut luñ ko sosalee parce que liñ bu mu ñëwee foofu li ñu bëggoon accord yu ñu bëggoon am ak moom te mu bañ accord yu mu bëggoon am ak moom te mu bañ loolu lañ ko tëjee kaa ñu defal la lii huit cent millions Dakar matin ñu ubbi la ko télé jox la ay matériel nga wut ay journaliste nga am comme tout le monde ñu defal la lii lii lii proposition yëpp ci biir kër googu Pape Alé bañ ñoom Pape Alé Niang génn ñu bëgg comme téléphone bi lañ bëggoon jël mu bañ ñu proposé nañ ko sax pour mu fay téléphone bi mu bañ dañ ne dañuy jël téléphone bi pour mu togg ñoom mu bañ ñu ne ko fayal téléphone mu ne mënuma fay téléphone bi sama téléphone du munuma ko fay j'ai de j'ai des yoo xam ni yu intéressant yoo xam ni bëgguma mu raw ma munuma fay sama téléphone soit ma ma yéen a ma woo avec tout le respect que je vous dois ma wuy leen parce que vous êtes un président un couple présidentiel mun naa leen wuy si mais di di jël sama téléphone wala fay sama téléphone moom munuma ko wala joxe sama téléphone munuma ko ñu ne ko waaw amul problème ñu nangoog moom noonu commencé di ko proposer ay huit cent millions ay ubbi télé après sa site boobu ñu nga ubbi benn site bu gën a performant nga def lii nga def laa ay seen fen yooyu Pape Alé Niang rejeté loolu léegi nag Pape Alé Niang bu mu génnee ñu ne waa ji daf leen enregistré eh, Pape Alé Niang ndax il paraît que <laughs> soupçon lu tax joxewul téléphone lu tax ko Pape Alé Niang dafa doon enregistré gars léegi nag loolu lañ topp moo tax bu ñu demee xoolal dañu fekk Pape Alé Niang gars yi dañ ko topp filature depuis bu ñu le lendemain dañ ne kii <laughs> yóbbu na suñuy ojo de enregistré nañu de filature ñu topp Pape Alé Niang teg teg teg topp ab dañoo bàyyi ba muy defar pënam xoolal dañoo ñëw wax na dëgg nii bu mu yore kóol bi dañ ko këf këf comme ay agresseur vum ko kóol ba naaw kool ba lañ jëli coy yi coy yi nii lañ def comme man civil wër ko wër oto bi di kii del déglu del xool